analise yi match yi ñu joué yëpp muy euh, Sénégal ak ay jafe-jafe rek la ñuy am chaque fois si arbitrage bi dans l' boo xoolee match bi boo dindee sax bit boobu ñu bañal euh, bare na ci faute yeeg parce que ay àq match yomb na ci faute yeeg yooyu ci fin de match bi ci moment bi nga xam ne moo gën a metti gis nañu ñu bàyyi fi hors-jeu xam ne bu duggoon ñu ñàkk match bi def naa loolu dafa jot nag ñu posé ko nit euh, yëpp ñu ngi siy teg seen bët jot nañu yëngatu wax li nga xam ne moo doxul ci Euh, maanaam si arbitrage bi nga xam ne football sénégalais mu ngi koy subi parce que sinon duñ si génn parce que euh, defe naa poule bi suñu xoolee erreur yi am yëpp day weng toujours si côté suñu adversaire lu tax loolu. président loolu lan ngeen ci mën est-ce que du yéen yéen a ko war a wax tamit. parce que ci la dëkk di wax. Euh, Mame Fatou je pense que wax nañ ko waxaat ko ni ma doon wax sànq quand même suñu kilifa gi muy représentant ministre dama ko ne nag jot na état Sénégal tam yëngatu parce que ñu ngi investir xaalis ñu ngi def lu nekk pour gagner mais gis nañu chaque fois. Euh, li ñu gis dalul xel euh, yàlla may nañu parce que xëj na tam am nañu doole boo xam ne ak mantaal boo xam ne mu ñuy may ba léegi ak yàlla taxawu ci pour ñu nekk premier ba léegi mais munul continuer c'est que match bu nekk on a euh, ay ay décisions yoo xam ne manifestement day day gaañ Sénégal bu yàggee xale yi dinañu xaddi donc mooy dëgg bi ñun suñu wàll li ñu mën def mooy wax ko xëj na bind kaf pour attirer seen attention ci arbitrage bi ñuy subir dinañ ko def mais xam naa ne doyul parce que tamit ñëpp xam nañu ne depuis deux trois ans. bu demee ba mu toll foo xam ne li tubaab di wax coupe bi fees na maanaam pot bi fees na war na jot ñu poser problème bi ñu xam lu tax Sénégal di subir lii saa yu nekk parce que match bi ñu mën rëcc amaana am nañu ay bal yoo xam ne bu ñu ko dugalee match bi sotti mais loolu mënul yem ci loolu rek bu ñu amee occasion wala bu ñu amee ay yoo xam ne dañu ko war a tirer bu ñu amee ay hors-jeu ñu ko tiireel comme ni ñu koy defalee ñeneen ñi parce que loolu mooy li gën a